اللهم صل على محمد وعلي محمد ولن رك تفني اسمي لي يلا رك موكو من لي يلا رك موكو يايو ولن رك دوم عرب دوم عرب فنك نتوكي دف كوي ويخك كخونكك كجونك كنيولك اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد Muhammad Allahumma salli ala Sudan Sudan Allahumma salli ala Muhammad Ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Ali Muhammad biñ lagi bapare, ini ini ñu ngi nii di jéem Euh, par la porte Bab Salam, numéro 1. Donc, pour ziare wa Sayyidina Mohamed Ali salaatu wa salaam ndax euh, ñaari mbir moo fi nekk ziare maanaam da ngay romb rek yonent Yàlla Mohamed Ali salaatu wa salaam euh, bu la neexee mën nañ ko jël vol avion direct sans escale bokkul ak. ñi nga xam ne dañuy leen dañ leen a programmer pour ñu dugg ci raw du jannatu bi julli fa ñaar rakk toog ñaan ñooñu mën nañ leen misaale euh, vol avec escale boobu nag moo gën a neexati ndax moom dinga nga ziyaare di toog ñaan fii nag moom ci bojare jaaree par la porte Bab Salam di nga ziaré rek waaye do tok julli taxaw sax do ko def ndax duñ la alkaati duñ la may fo taxawé kon deug ziaré rek jàll waaye lu ci mën doon rek baxna di nga jàkkaarloo bi alayhi ziaré ko waaye fé mom da ngay ziaré da ngay tok julli joko ñaan kon fining ñi ngi ci ziaré bi euh, comme ni ko hadisam ba mu ne fee mu digentem xabrum ba moy ak min baram bi place la ci placeu aljana yi ñukay wax rawdu jannatu euh rawdu jannatu bi nak ku fi dugg rek comme niñ ko waxe rek jappal na yaang ci biir aljana te deewoo ko ndax yalla subhanahu wa taala mo wax ne yonent bi du wax ci neexaayu bakkanu wax ma ko wax lo kon ku yalla baxé ba nga dugg ci raw lu jannatu bi julli fi ñaari rak ñaan jappal na yaangi bi biir yalla ñu yalla defal nak ñu yéwo tamit bés bu ñu yàlla jëlee ñu yéwo bi àjjana tax jël gi moom mënta ñàkk maanaam dee mënta ñàkk moom allah ku di hal mom ku dund di nga dé yalla mako wax ci alcorane kon bés bu ñu yàllay jël yalla nañu dékkalé bir aljana ci barke Muhammad alayhi salaam kon duggu fi te ci raw du jannatu

day am na ñuy jaawal nag toujours ou bien ñu xàmmeewul fan mooy minbar bi ak fan mooy mihrab kon lii ngeen gis nii mooy minbar bi léeg-léeg ngeen seen mu mel ni tuwaatu bu pointu mooy mihrab ba fa la daan taxaw di julli kon mihrab ak minbar loolu mo len différencier waye nak ñom ñaan ñëpp bi raw du jannati bi la ci allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Di yepit batay ñing ko mën a ci umri spécial bi Dakar agence Dakar cartel organisé 4 jours Madina 4 jours makkah 2 jours Jordanie deux jours Jérusalem masjid al-Aqsa qui euh, vraiment prix boo xam ne euh, euh, macha allah daal ndimbal jaboot la ko mën a tuddee te it ay hôtel 5 étoiles rek la ñu dëkk woon naa leen cinq étoiles yi hôtel étoiles yi man mi wax ak yéen pèlerin naa comme pèlerin yëpp damaa fay ñom li ñu fayé wayé nak li olof Njaay di wax ne ku gis na nen ngi damaa gis nen moo tax ma ne nee na ngi nii lii ma gis agence bii def keneen ku ko defoon it ma wax li ma wax kon damaa seede te yàlla tax allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad agence de voyage yi nañu yombalal nit ñi yoonu Makka moo xam aj la moo xam umra la kii déjà lii nga xam ne def na ko rek ci umra bi trois pays Arabie Saoudite Jordanie

kon min bar baa nga nële mbix rab baa ngi nii mooy toiti bi ba tey ci ouray spécial bi agent quatre vel organisé ce 7 août 2023 ñi ngi ni ci rawdu jannatu bi li ñu jàkkaarloo fi moy mihrab bi mana fi la yonte yalla bobu sallam taxaw daan julli fele nak moy minbar kon minbar bi ak mihrab bi bokkul dañoo lànk lépp nag ñu ngi ci biir euh, rawdu jannatu bi euh, prewo bi ngeen di ci kaw moy place euh jakkay yontu yalla Muhammad alayhi Madina kon bëgg rawdu jannatu ngi nii rawdu jannatu ngi ni allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad euh, lepp ci cadre umre spécial bi Dakar Travel moom say organisé buñ dañuy def 4 jours Medina 4 jours Makkah après umra bi jàll Jérusalem te Masque Al Aqsa Al Quds fekk jaar nañu d'abord Jordanie fa la xabru Seydina Chouaïb bu nekk fa la la caverne des sept dormants nek muy asaxabul CAF euh, donc diggante euh, ci parcours bi manam maanaam euh, dinañ dem Hebron fa xabru yontu Yalla Ibrahima nek xabru yont yu bari ña nga fa daal xabru yontu Yalla Yunus yontu Yalla Ayuba yontu euh Yahya donc voilà l'édition la deuxième édition de l'agence Dakar Travel de Montmartre, qui est une première au Sénégal. Euh, en tout cas, à ma connaissance, euh, les agents de voyage n'ont pas encore commencé à explorer euh, le Moyen-Orient, particulièrement la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. masjidul aqsa al quds fi ci jerusalem julli nañu geewee ba euh mihrab bi day al jakké yontu yalla muhammad ali sallallahu wasalaam wasallam lamay nurul nurul nañ trop kon ni rëy na taaru na sell na kéemaane na na taaru na sell na kéemaane bunt bii ngeen di gis fii la yonti yàlla Muhammad alayhi salaam yee woon alburxaax bi mi bi ko di rañaan di koy yëkkati aras ngir jox ko juróom kon jàkka ji buñ ne sell na loolu firnde buñ ne taaru na gis weddi bokk ca bu dee rëy na gis weddi bokk ca allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad lii mooy al quds ba ñu nekkee ndaw daan nañ ko dégg di ko gis ci ay journaux ak i télévision ak i support waaye yàlla def na tey ñëw nañ ba dugg fi ba ko yàlla nañu yàlla wane rek Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam biir àjjana wane rek Seydina Mohamed alayhi salaatu ak sunu njabot aduna gal akhira barkel sunu njabot barkel sama njabot barkel njabootu julit yeb djegal te yeram xare aljana sama ñaari wayjur ak ñaari wayjur sama mbokk yeb di néegu ndey di néegu bay yalla yalla doli njegal wayjuri doli barke sama njabot ak njabootuk sama njaboot ak mboolem jullit allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad lii ba tey mi ngi dugg ci cadre reportage spécial bu ñu def nii par le mensuel le jour al yawm ci umra spécial bu Dakar euh, travel organisé ci mois 2024 4 jours à Madina 4 jours à Makka et 2 jours à euh, euh, en Jordanie 2 jours en Palestine yalla baxé ñu ziaré a yu bari yonent yalla shuhaybu Madiane ca Jordanie yontu yàlla Shuaib ca Jéricho fii ci Palestine yontu yàlla Ibrahima alayhi salaatu salaam ki waral lépp fii ci Hébron Palestine yontu yàlla Isaaxa fii ci Jéricho ci Palestine ak soxna yontu yalla Ibrahim Ali salaam ki wax saarate ki jur isaaxa yontu yalla ismaayil mom ma nga màkk cër ijël ismaayil ba mok yaayam eh, ajara kon daal ñi ngi sant yalla di gërëm yalla bu baax allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad toujours dans le cadre de notre reportage quotidien hein? euh, du mensuel Le Jour à euh, nous avons le plaisir de vous présenter un des sites historiques les plus importants de l'islam, c'est-à-dire la maison de Dar Al-Kham Gate. C'est la porte numéro 16 kon fii moo nekkoon kër benn saabu bu ñu daan wax daal al ñi njëkk tuub tukk ci lislaam fii lañ daan nëbbatu di jàng diine ji ak yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam ak euh, euh, Hamza kon fii nekkoon na une école clandestine ndax ñi nëb ñi doon door a dugg ci lislaam wuñu woon fii lañ daan nëbbatu ndeysaan <clears throat> jàng seen diine ba benn bés euh, Umar le deuxième calife de l'islam euh, décidé woon ne day ñëw faagaagal ou bien assassiner le prophète Mohammed alayhi salaam waaye ba mu ko defee euh, ba mu amee intention bi bokk ne day ñëw <coughs> rey ko dafa tase ak goroom maanaam kuy denc rakkam bu jigéen mu ñëw rek ramassé ko bëgg koo faagaagal ndax Omar borom kantan la woon te it forte personnalité woon mecquoise kooku ne ko goro bi ne ko man bala nga maa dóor mbaa bala nga maa rey demal nga rek la ji sëg kër famille ba pare ndax sa rakk dugg na ci lislaam effectivement rakk bu jigéen jigéen duggoon na ci rek Omar xëtër xëtër yi yegg rek yegg si fii tey ci daal alxam naka lañ ko séen rek ñu ne xam euh, Omar a ngi ñëw Hamza daal di ne toog leen rek ànd dal bu ñëwee indi jàmm fekk fi jàmm bu indeel leneen fekk fi leneen yàlla woo yàlla Umar euh, bi muy laata yegg si sax dafa njëkk a jaar kër sëram fekk ko mu yor alxuraan di jàng kooku bëgg a Umar bëgg nangu alxuraan bi jàng kooku ne ko soxna si rakk ji ne ko doo ko laal ndax danga am sobe ba mu ko bëggee laal mu ne ko demal nga dindi sa sobe pare kooku dem ndeysaan sangu daal di ñëw rakk ji jox ko téere bi mu yore woon <clears throat> mu jàng ci immédiatement daal di yàlla dugg ci xolam mu am changement mu ne ko fan la yonent bi nekk nii mu joxoñ ko kër gi ci la ñëw yegsi nag fii nag ba mu yegsee ak waaye bi muy ñëw liñ naan olof njaay li olof njaay di wax def maanaam tëbu gaynde la am waaye dalu weñ la am maanaam yoo ba mu ñëwee ndekete yoo ci diggante bi en cours de route yàlla baaxe na ko change na xelam ak xolam mu ñëw keroog ci la tuube mu daal di leen ne yéen lii ngeen di woote yéen nag ci dëgg

l'islam judo waye bu fekkone euh génn fi l'islam du yegg tay ci aduna bi kon ñu def un don def un petit euh, rappel hein sur l'histoire de cette maison d'art Al-Kham qui fut une école clandestine Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Voilà encore la ville de Jérusalem. Hein? Jérusalem. Une ville vraiment religieuse. Ah, Hello. where are you from? Jewish? Jews? Yes, we are Jewish. Uh, from you? From here, yes, from Jerusalem. Jerusalem? Yes, Jerusalem. Hello, hello. From Senegal, Senegal. from Senegal. Ah, Senegal. Senegal. Ah, I am Muslim. And you, you Jews? No, I'm Christian. Christian? Yes. from you? Huh? Do from you. What your, your your country? Your country? La, la, la, la, la. My country is Israel. Your country is Israel. Yes. Okay. Okay. In Senegal. You're from Senegal. Senegal. Senegal. From Mecca. From from Mecca. From Mecca, Medina, Rasul. Oh. Alayhi salam. Medina and Mecca. Umrah. Hè? Nou, hij, hij, hij komt um, uh, Jeruzalem. Hè? אולי שכולם עכשיו יצאו עם הפלאפונים רגע ונצא לאותו יאללה, בסדר? נגייס עוד חבר'ה כאילו לזה. חבר'ה, חבר'ה? חבר'ה, חבר'ה. חבר'ה, חבר'ה. חבר'ה. You speak French? French? No, no. English? English. What is your name? Eitan. Huh? Eitan. Eitan, your name? Eitan means Yes, Eitan. Uh, Christian, Christian, Christian or Jew? What? Christian. No, we want to, we want to, Okay. Come, come. Let's go. ما شاء الله ما شاء الله مسجد القدس زرزلة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد مسجد القدس قدس جنة زلزلة اللهم صل على محمد وعلى محمد